dañuy gërëm Gorgui Wade Ndoye mi nga xamante ne c'est un éminent intellectuel bu dëkk fële ca Genève ak Tëngéej ak Sénégal ak Afrique mais góor gi toujours day jël ci jotam fàttaliku bu muy fàttaliku ne réewam moo ko formé moo tax muy delloo njukkal réewam. Euh, gingembre littéraire yi nga xam ne mu ngi koy organiser ci at yu bëri euh, tey jii ñu ngi woon ci cinquième édition bi euh, ci premier décembre bi passé tey jii mu ñëwaat Rufisque delloo si waxaat lañ fa lañ fa tënkoon lancé waale gingembre bi jiitu ci atu 2024 bi pourquoi mu tànn Rufisque waa Rufisque waa la moom tey jii la muy def ci Rufisque ñëpp xam nañ njëriñ bi mu am ci ndax moom dafa dafa dafa enraciné wu tey jii def nañu restitution bi rappelé nañu ne gérer mbirum suuf ak pétrole ak gaz cadre légal baa ngi fi waaye ay compétences transférées la waaye loolu yëpp nag wat gaal yëgoo comme ni ko sunu mbokk lébu yi di waxee wat gaal yëgoo lan mooy la ciy dëgg nañ koo xam wax ko ba lu dul dëgg bañ ci rax waaye tamit la nga xamante ne tënk nañ ko te muy njariñu réew bi ñu veiller à ce que ñun ñëpp ensemble ñu ñu mettre ko en œuvre. tey gi Sénégal amul woon gaz ak pétrole am na ko am bi mu ko am tax na réew convoitise la bu ñu gënul nekk benn rek saay-saay mën na fa jaar pour gën ñu diviser te loolu baaxul. sama waxtaan moo doon euh, li ci aada.

dañu soxla nite ay nit yu nite